waaw ah, très cher internaute ñu ngi ak Seck le Tarkinda Seck ñu ngi lay nuyu. maa leen seer di wax ne jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul. kàcce ngaalaama Baye Seydi Mbacke alxuraan. te ngeen doon woote open press jëm ci bis bu am solo dimanche bi ñu ma le 22 noo gisee mbir mi état physique bi. waaw comme d'habitude rek li ñaan borom bi suturaal ñu rek may ñu ndam mbër moom li mu waroon def lépp def na ko ñu ñaan yàlla may ñu suturaal ñu may ñu ndam bu sedd guy si kaw Garga 2 waaw combat bi ñu njëkkoon ko jàpp ñu bëri da ngeen a parewul woon wut prétexte loolu lan nga ci wax waaw mooy loolu lamb ji moom instant bi moom gars yi moom xam nga ku waaw boo gaañoo ñu ne waaw da ngaa ut lii da nga ut lii mais mooy loolu mais instant bi na nañ ñaan yàlla rek balaa dimanche dara bañ si xew hmm. yàlla defal ko jàmm defal Mama Lamine jàmm ñëw instant jàpp ko daan ko dem ñibbi. alors Seck dañuy ñëw ci signature bi passé parce que am na lu fa xew sa tour jug ci ñu bëri ni Seck warul def lool taxawaay bi am ci tarkindaa yi lan moo xew réellement keroog. waaw mooy loolu ku boot bu xaj boo la te dëggoo li ma la ñun dépassé nañ ay këf ay laafa ay këf yoo xamante ne yu ñàkk fu la yooyu noonu ñun xamuñu loolu. mais Garga 2 moom xam nga waxin mbër la rek aw lu ma koy wax loo xamante ne nii mooy di ko xamal ne ko moom. buy wax si man na wax loo xamante ne nii lu naaj la moom mënu ma wax loo xamante ne nii mooy loolu. mais moom waroon na mën a xool ki këf laafa mu ne diw moo këf laafa mais maanaam sama tur la xam moo tax mu ne Abdou Seck mais loolu garaawul lu ma ko sax. Ah, mais nee na dalaa gis bu baax identifié la ci nit ñi. waaw déggoo ma la wax yéen yéen ngi woon foofu caméra yi ñu ngi woon foofu nañ ma génneel preuve boo xamante ni rek nee nañ Seck moo këf laafa wala mais lan la ñuy doyee laafa li koy daan du li ko maamaloon wax. billaay wallaay lu dëgg si moom lu dëgg la si ñun billaay wallaay taalaay Garga 2 pare nañ ko ni ko war a pare ñu ñaan dem si jàmm ñëw si jàmm yàlla suturaal ñu ñu yàq làmb kenn xamewuñu ko si nga dégg lu ma la wax ni dañu koy waxal nag mais mun maanaam xamuñu lu ñaaw di ñaan borom bi suturaal ñu dimanche bi mooy ñun ndam bu seedu guy si kaw Garga 2 incha allah nga li koy daan mais Garga 2 gis ñu gis keroog physiquement taxaw na fonk na làmb ji est-ce que daan ko ma la wax Garga 2 taxawul sax daan ko parce que li tax yombul mooy que ni ba làmb ji taxawee deux ans ba léegi tooguñu. saa buñ ko jàppee ñun li ñu war ñu ngi si moom li ko war mi ngi si kon Garga 2 ñun buñ ko xeebee dañuy laq suñu daay. parce que dégg lu ma la wax ñu war lépp ñu ngi si borom bi moo yor ndam parce que dégg lu ma la di ko ñaan di wax Serigne Sidi Mbacke alxuraan mu jàpp si làmb ji làmb ji làmb bu ñu intéressé la. suñu sëriñ suñu yaakaar àdduna ak alaaxira di wax ñëpp kilifa yëpp nañu si jàpp bu baax a baax a baax Mama Lamine daan Garga 2. incha allah bu soobee yàlla. ngeen jëm arène nationale lan mën a xaar ci wàllu mobilisation. waaw comme d'habitude rek comme te ñun mooy loolu ñun si arène nationale bi foofu lañ dëkk. dañuy dëgg kuy dem Iba di ko feesal kon arène nationale maanaam du la jaaxal. di wax promoteur bi mooy loolu biyee na ko wàññil xale yi xam nga ma la ma la wax si jàmm rek. di woo ñëpp ñëpp ñu ñu dem si jàmm. jàpp Garga 2 si jàmm daan ko si jàmm ñibbisi si jàmm ndax jàmm gan lañ dëkk. jàmm nañu waaw di wax Garga 2 nag booy wax say wax del xoolaat li ngay wax bu baax a baax a baax. da ngay jéem a bëlëfe gars yi di leen réeral déggoo li ma la wax man kenn joxuma a lekk kenn joxuma ma naan barki Serigne Touba xam la moo tax ma taxaw ak di wax ni yow doo ma gis sax may wax. billaay walaay taalaay mën naa wax am naa opportunité bi. di wax chaque jour ñu may gis chaque jour mais xaw wax. xam la laa xam jëf ñi jaral nañ ma loo xool loo xamante ne nii moo raw ay këf laa fa mais xar day weesu mbote wala xar day weesu mbote kon moom moo xoolaat li muy wax parce que déggul ma la man mën naa dox ànd ak nit sax nit këf laa mais ni mu waxee sax bu nekkee noonu bu même bu ma ko gisoon tey jii nii maanaam du ma ne ko am parce que bu ma ne ko am sama der yàqu si yaa déglu ma la nañu xoolaat li nga xamante ne nii mooy jaaru ñu koy wax si yaa déglu ma la lay làmb la lii day dara mooy loolu lan mooy laafa. ay sama laafa diw moo ko këf mooy loolu. loolu taxul man mooy lool li ma war man li ma war a nekk chaque jour maa ngi si. parce que Serigne Bamba man amul loo xamante ne ni maanaam dama koy yeet dama koy wax nit loo xamante ne nii lu koy neex la mais maanaam tey jii nii ku may séntu si gaalu xaj ma si mos a fekk ma si lekk. parce que man xam naa ki ma doon. mooy loolu waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo ñëpp dimanche di leen wax ne dañoo am làmb bu ñu amal importance jàmm gën sikaab mbaaw sam-sam saa déglu ma la fora ñëpp nañ pare te nekkul maam la ma mooy bëre si làmb ji am boo yoo xamante ne dañu am yaakaar si ñoom ñu war a bëre si di leen ñaanal ñoom ñëpp ku si nekk am ndam waaw ñu ñëm ñu dem si jàmm ñëw si jàmm daan si jàmm ñibbi si si bi loolu rek ñuy wax ah jaajëf